comme chaque mardi euh, ci euh, yeewu culture euh, d'abord dinañu recevoir léegi Fatou Touré c'est ça pour waxtaanee Clap Ivoire 2016 mm-hmm. ak film bi di Promesse mais d'abord am na livre boo ñuy présenté Aïssatou Paye Fall comme chaque mardi voilà donc Noir déchirure la mm. bu Amadou Fall mm. donc c'est un livre qui parle d'amitié qui parle d'amour qui parle du respect des droits humains mm. moom nag benn journaliste la Fall mhm. moom docteur en histoire et économie sociale la mhm. moom moo bind téere bi donc téere bu intéressant noir déchirure voilà donc livre la boo xamante ni mën nañ ko am euh, ci. Harmattan ah, waaw Harmattan lañ ko lañ ko lañ ko publier donc boo mm-hmm. demee Harmattan di nga ko mën am foofu. mu ngoog donc loolu mooy livre tay bi euh, dem leen ngeen wuti ko alors Fatou Touré lauréate de Clap Ivoire 2016. voilà donc on va parler de de de nekk benn festival boo xamante ne euh, dañ ko dañ ko consacré aux jeunes réalisateurs des pays de la CEDEAO. Mm. donc Fatou Touré. ak Mortala Ndione nekkoon sénégalais yi nga xam ne ñoom la ñu tànnoon pour ñu représenter ñu te bu ñu demee représenter ñu nag ñoom ñaar ñëpp am nañ fa ndam Fatou Touré euh, ak filmam bi di La Promesse am na meilleure interprétation féminine ak euh, meilleure euh, meilleure fiction Mortala Ndione am meilleure meilleure photographie uh-huh. ba ñu jox ko ab xaalis bu xaw takku. Eh euh, Fatou moom indaale trophée defe naa tamit teg nañ si tuuti xaalis. Mm. tey nag loolu tax tey ñu invité ko ngir waxtaan ak moom ci film bi di promesse mu wax ñu film bi lan lay lan la lan. waaw mun nañ si xool extrait normalement y a la y a la annonce voilà. Je t'en fais la promesse. Bon, j'ai euh, à moi Je te la maison à la mine que suis. C'est pas une blague. Je te de la famille. Toute ta lignée est catholique. Et aujourd'hui, tu réunis tout cela pour Tu oses abandonner ta religion. Uy, papa. di la tere nelaw a ngi di yandoor kon looy xaar des na ci yow jox ma sa loxo kan dem àdduna bu la dara jéem a jaral di rëccu na nga bañ te nga jéem a xëccu àdduna promesse réalisatrice bi di Fatou Touré voilà donc euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. et tu es trop <laughs> xaaral ma apprécier rek tuuti rek wanaat ma plan bi nga wane léegi ci ay Paye Fall. woo t'es mais tonton ak toi aussi bul iñaan <laughs> woo eh bu ko flouté woo. man musuma gis ku mel nii ci télé wow wow wow wow eh mais eh eh, eh mais eh mais mais eh wow regarde ak xaji bi à la garçon Ouh là là mais elle est trop belle est-ce que tu sais est-ce que tu mën nga feeñ nii rek sans rien dire ñu jox la une heure de temps boo xam ne doo wax nii rek lay jëlee essayons ça quelques minutes pour si toutefois ñu créé woon benn émission boo xamante ni doo am concept doo am contenu doo am wax juste on montre juste Aïssatou Paye Fall une heure de temps durant c'est parti émission bi commencé na.

prix meilleure interprétation féminine mhm. si sa film documentaire de 13 minutes bi benn court métrage la nga am meilleure fiction léegi dama bëgg nga wax ñu film promesse bi si lan la tënku ba nga xamante ne euh, plaire na noonu jury festival Clap Ivoire d'accord bon Euh, sama film film fiction de 13 minutes la mhm. Donc le film s'articule autour de du thème de la polygamie. Mhm. maanaam film bi damay wax euh, damay raconter histoire. benn femme boo xam ne jëkkëram da ko takk mhm. di ko que ni du ma la mës a takkal ñaareel bien vrai que y a pas ko et mais promesse bi dafa nekkoon foofu noonu donc damay aborder sujet boo xam ne euh, damay góor ñoo xam ne dañuy joxe dañuy def ay dige yoo xam ne duñu ko duñu ko tenir c'est-à-dire mhm. promesse illusoire yoo xam ne dañ koy def seen ay jabar yi yàq seen àdduna et tout d'accord léegi dama bëggoon xam euh, est-ce que pour def euh, film documentaire boobu amoon ngeen sa ay jafe-jafe. ndax <laughs> film fiction bi ndax amoon na ay jafe-jafe ndax amoon ngeen euh, budget bu doy parce que xam nañ ne ay ndaw ngeen te xam nañ ne cinéma jafe-jafe yu muy yu mu jànkonteel fii ci Sénégal. d'accord bon pour def film bi peut-être xawoon na jafe tuuti parce que amuma amuma woon financement. Mm. donc c'est une production bu ma def mais. mën naa ne jafewul trop parce que amoon naa ñu bëri ñu ma jàppale ñu nekkoon sama ginnaaw d' abord film bu mënee nekk d' abord euh, c' est grâce à l' aide de mon mari Malick bu may remercier bu baax moom su weesoo amit amoon naa équipe technique bu nekkoon sama ginnaaw donc une bande sama ay euh, sama ay comme Père Rome. Mm. Lahat Won euh, Sida Touré donc voilà ils étaient tous derrière moi. ça ça c'est donc ñu jàppoon ci bu baax. ma am mm-hmm. équipe technique bu normale aussi donc une vraie production. Mm-hmm. avec de maigres moyens. Mm-hmm. donc tey su film bi demee tey ba jël benn prix donc moom ñoom laa koy jagleel d'abord. mais fierté la bu baax parce que mën naa mën nañu ne ñun ñëpp ay xale lañu te ñu ngi jàppalante suñu génération en tout cas ñu ngi def le tout pour mën a di jàppalante suñu biir di tourner ay film te donc loolu noonu c'est c'est important pour man. d'accord léegi yow lan nga xalaat en tant que réalisatrice euh, fu mu toll nii. yéen xam naa ne bu doon seen sago seen film yi ngeen di def ñun dañ koy mun seetaan. Mhm. muy film sénégale yeeg yenn affaires yi. ñun lu si ëpp ci festival yi lay dem ak yooyu ñun duñu am possibilité seetaan ko ndax euh, amuñu salle de cinéma mhm. amuñu yenn moyen yi. yow lan doxul noonu fii ko voilà voilà donc yow lan ngay wax lan ngay wax pour que loolu ñun ñu mun si bénéficier wu balaa keneen di si bénéficier wu. bon loolu pour man euh, ay ay mesures yoo xam ne dafa war a accompagner cinéma bi la mhm. donc. Euh, d'abord en commençant par les salles de cinéma parce que amu fi peut-être yenn yu ndaw yu ñuy mën a gis mais bu fekkoon ne am na salle de cinéma loolu mooy yaakaar naa solution bi parce que film boo ko defee yaakaar naa d'abord pour nit ñi mën ko gis la mhm. seetaan ko pour mën ko apprécier maintenant amuñu amuñu moyen boobu parce que fii projection yi ngay mën def yoobu d'habitude c'est des projections yoo xam ne c'est même pas payante donc mhm. tu le fais pour faire pour te faire pour faire voir ton film. Hmm, euh, sans nga am ci dara am en retour exactement exactement surtout su nekkee ay court métrage. Hmm. parce que court métrage euh, à part télé yi mën ko jënd. yaakaar hmm. naa festival la ko mën def. donc dañuy def ay court métrage pour mën a être euh, yokk. yokk mën a mën a gën a liggéey pour ñu mën ñu xam et tout ça pour ñu mën a peut-être ëllëg ay financement yu mag et tout ça mais on est obligé de passer par les courts métrages malheureusement mënoo ko jaay télé parce que duñ ko jënd. mais lan lan moo tax. waaw dañ <laughs> ay télévision les médias yi nga xam ne mën nañu pare nañu pour euh, jël euh, court métrage yi pour diffuser ko. honnêtement non pas encore mais j'avais j'avais lancé une série. Mhm. Euh, benn donc ça yaakaar naa moo gën a gaaw pour mën ko jaay télé mais même avec ça c'était difficile mm-hmm. après je dû arrêter ça parce je trouvais pas intéressant parce que télé non seulement duñu produire mais après quand tu les quand tu les amènes ton produit mm-hmm. duñ ko jënd et c'est c'est dommage quoi c'est dommage. oui mais après formule yi ñu lay proposé après jënd bi tam day euh, day kii parce que lu ci ëpp prix télé yi ci boppam ñoom ñooy produiral seen. bopp donc ah, mais xam nga déjà loolu noonu. du si li ngay wax mooy mooy mooy idéal bi mooy. normalement une télé dafa war dafa war dafa war a am ay unité de production extérieure c'est-à-dire dañuy war a jënd ay produits. il y a pas de normalement aussi ah, bu fekkee télé bi mën na produiral boppam aussi bu produiral leen. boppam gën ce sera moins de moins de moins de charge pour télé bi. bon suñu objectif ak sa objectif yow en tant que réalisatrice mooy affaire affaire bi dox ba lu ngeen produit mu mu euh, mën a mu mën a dox. mais par contre ce je suis pas d'accord ci normalement bi. waaw d'accord mais mais mais par contre. je suis désolé non à moins à moins non parce qu'on voit les. li ngay dem jëndi boo ko mënee defaral sa bopp waaw ndax di nga dem jëndi. non non non ça ah, je suis pas d'accord mais loolu <laughs> moi je suis d'accord avec toi. li li ngay ñaan en fait ñun loolu la ñu ñaan que affaire bi dox. loo produire mm-hmm. même nous autres animateurs on veut on veut toll ci ay maison de production di produire suñu bopp euh, télé. les télé normalement vocation. y' a pas de normalement c'est pas ça. non non non c'est pas c'est pas de produire des des des films. non. télé télé bu ko neexee produire yëppam. waaw mais mu euh, doxee ba télé bi am ba ba ba yi dox. Mhm. bu ko neexee mu dem jënd mais bu mu nekk bu ñu nekkee ci dëkk bu ndaw et que bi mën a defaral boppam euh, voilà euh, mais defe naa fi fi mu koy waxee. Uh-huh. je pense pas que mu nekk ci côté que non télé yi waxuñu produire. mais juste pour jàppale en fait le le les films sénégalais en fait. voilà pour jàppale leen ce serait bien aussi mm-hmm. que que yi. Mm-hmm. bu ñu mënee astu toutes comme ces jeunes réalisateurs là ñu wane leen ce serait juste euh, un bénéfice oui, mais pour tout le monde surtout que la bëggoon wax lan mooy lan mooy sa motivation. Euh, affaire yi doxul noonu mais motivé nga pour def film. Mhm. waaw bon man sama sama je crois cinéma sama sama liggéey la mhm. donc. ci la yaakaar peut-être pour euh, pour mën a avancer sama vie professionnelle mhm. c'est ça et maa ngi ciy liggéey en fait en tant que si je réalise pas je, je travaille en tant dans le cinéma j'ai jamais fait télé e voilà je maa ngi ciy sant yàlla quoi donc maa ngi avancé ndànk-ndànk. mooy sama motivation c'est c'est c'est quoi quand j'ai pas de production pour en tant que réalisatrice que je tourne en tant en tant que technicienne. tu mais en tant si si réalisation bi aussi bu fekkee ne projet projet les euh, <clears throat> financements sont là ak Africa bi se vrai que ça avance un peu. Mm-hmm. mais suñ ko gënee am mu gën a baax donc ñëpp di mën di liggéey. surtout les jeunes. est-ce que les fonds euh, sont suffisants FOPICA bi est-ce que du li ñuy taxawal. ñëpp mën nañu bon pour première fois financement bi c'était pas mal un milliard. Ah, pour cinéma c'était pas mal donc on dirait pas que ni doyul. Mhm. mais buñ ko yokkee quand même <laughs> mais looy wax euh, jeunes yi nga xam ne ñuy rêver devenir ay réalisateurs vous êtes euh, nga représenté koo xam ne ci Sénégal xam ndaw nga bëgg a nekk réalisatrice comme yow surtout ci motivation bi ñu am ak détermination loolu leen encourager pour ñi nga xam ne ñu mën a vivre seen passion. bon li ma leen di wax peut-être mooy ñu yokk góorlu rek te liggéey parce que secret bi am en fait y secret liggéey rek bi liggéey kese la donc ñu góor góorlu ci ñu am pas ñu am euh, pas-pas ñi nga xam ne peut-être ay auto euh, ay euh, ci lañ tamit ñu xaw ci gëstu tuuti mm-hmm. ñu xam ci voilà quoi parce que c' est ouvert en fait cinéma du loo xam ne dafa tëju parce que bu nekk ak sa sens artistique ngay demee. Mhm. film bu nekk film la donc voilà après nag noo ko réaliser après voilà. mais ce film pourquoi sujet polygamie. pourquoi sujet polygamie parce que dafa nekk sujet boo xam ne peut-être yitteel na ma. Mhm. en tant que femme. donc damay joxe sama position damay joxe sama sama avis. am baab sa jëkkër mu bañ la wut. <laughs> ah. moi je vous connais vous les femmes ah. da rek pour mu bañ a. non non baab la rek quand on est quand on, bon, quand on est réalisateur <laughs> quand on est réalisateur on donne son point de vue c'est pas personnel donc c'est pas un sujet boo xam ne pour man la mhm. damay joxe donc justement c'est un fait de société un regard sur un fait de société exactement c'est ça tout à fait parle-nous de euh, balaa mhm. euh, pour mhm. mel ni moom surtout nekk jigéen tout à fait mais li ma si bëggoon yàq euh, am na tamit comme tu parlais des autodidactes Mor Talla Ndione euh, moom tamit defe naa il est autodidacte il a réussi à avoir le prix de la meilleure photographie ak film bi Ramato sur l'environnement il est pas venu mais bon euh, j'ai dit honneur aux dames mais ñi ngi koy def un coucou et on le félicite aussi donc au passage donc on voilà ngi koy nuyu bu Mortal, exactement, c'est effectivement c'est un autodidacte, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Mhm. donc jot naa ko waaye xam naa ko tuuti. donc toogul def cinéma noonu rek toog di xool quoi c'est-à-dire mi ngi ciy gëstu bu baax mi ngi ciy liggéey. c'est vrai yaakaar naa ne loolu lañ gën a soxla daal. tout à fait loolu lañ gën a soxla. tout à fait donc pour ñëw ci prix bi donc euh, c'est le premier c'est le prix de. premier premier prix fiction bu may jëlee ci Clap Ivoire. 2016. sama première compétition la sama premier film la d'ailleurs en, comme comme fiction sinon, sinon j'ai fait quelques documentaires mhm. donc voilà c'est c'est un, une fierté c'est une fierté, ah, oui. une fierté ah, franchement c'est une fierté Euh, waaw bon bi ma nekkoon premier dépôt bi ma ko njëkk def donc c'est passé je vais continuer incha allah à déposer aussi dans d'autres festivals. Mhm. j'espère que dinaa ci participer que dinaa ci jëlee aussi yeneen euh, yeneen. yeneen prix incha allah merci merci beaucoup merci vous. Euh, voilà donc euh, Fatou euh, Touré lauréate CLAP Ivoire 2016 ak filmam La Promesse on va finir yow culture bi ak agenda culturel bi. waaw dañuy des ci ci ci agenda ci film yi donc benn festival le festival film documentaire bu Saint-Louis ce sera du 5 au au 10 septembre 2016 donc il y aura une centaine de professionnels audiovisuels ñëpp ñëpp une centaine de professionnels de l'audiovisuel dina am ay conférences ay débats ay projections film. Mm. donc ce sera du 5 au 10 décembre 2016. donc c'est un festival euh, euh, sur le film documentaire. sur le film documentaire. et en Afrique et film documentaire africain. en Afrique particulièrement. non des na. Ah. benn projection film bu la Bouzid c'est une mhm. tunisienne. Mhm. donc film bi mi ngi tudd à peine j'ouvre les yeux suba la. Mhm. mercredi 21 septembre lañ koy lañ koy lañ koy. lañ koy projeté donc euh, benn film la boo xamante ne ça se passe en Tunisie c' était 2010 donc dafa nekk xale boo xam ne mu ngi am fukki at ak juróom-ñett bu war a def bakkam waaye moom euh, li mu bëgg du du du jàng moom way la bëgg ak euh, ak cinéma ak yooyu ah. léegi nag comme da ngay xool ci naar yi seen éducation nu mu mel mu indi woon nag ay ay confrontation entre moom ak waa këram mhm. film très intéressant projection bi kañ la projection demain. demain à, euh, à l'Institut français. ah mais c'est bien c'est cool c'est vrai que Sénégal amul salle de cinéma mais je crois je vois que waa. de Sédar euh, ci doom bu Plaza. Sea Plaza ñu ngi débrouillé. itam fii ci Almadibi bi jour yoo xam nga boîte yi nekk fii da dem tout le temps. de cinéma nu mu tudd. amul voilà foofu tam je vois que de cinéma euh, ak d'autres quoi. yu nit yi ñett yooyu laa si gis de Sénégal. mi ngi dox dafa est-ce que vous vous rappelez à l'époque amoon nañu ay cinéma Paris. Plaza. première euh, projection bu euh, Titanic cinéma le Paris. la ñu ko étané la doon nekk à chaque fois film bu bees génn cinéma day fees. oui mais léegi église la. ay ay ay ca euh, penc mi cinéma la woon aussi. cinéma yaa cinéma El Malick aussi. yow miin nga cinéma yi c'est maa ngi woon ci samay digg jamono nga amee. Euh, waaw bu ma njëkkee ñëw 38 ans 38 ans. boobu maa ngi doon dem cinéma ñi nga xamante ni demuñu si bariwuñu tànk lool lool. amuñu xale nga moo tax fekkewu xale nga xale nga dama doon lire benn livre lettre ouverte bu mhm. Doudou Diène. Mhm. benn mhm. journaliste bu mag mais boo déggee ni muy décrivee ci biir livre bi muy décrivee cinéma yi. non da lay jox envie. et plus jeune encore autorité war nañu dimbali jàppale jeunesse sénégalaise ay nga xamante xamante ni. dañ doon yàkkamti par exemple ñu def projection filmu Hindu. ba ñu dem fay pour ko seetaan ko ci euh, ci ci ci cinéma yi. voilà donc y' a y' en avait tellement mais donc dafa mel ni dëkk bi dafa dellu ginnaaw quoi. normalement dañoo waroon toll ci ñàkk cinéma pare am ko. Ah, mais amoon ko après ñàkk ko. mais mais mais loolu xam nga lan la euh, euh, teg bi la. parce que ah. téléchargement non non non c'est pas par rapport. jeeg par jeeg jeeg par jeeg non mais je pense que loolu. jeeg par jeeg al jeeg par ah, jeeg jeeg par jeeg jeeg par jeeg jeeg par jeeg une partie am na avancé euh, maanaam film yi téléchargement yi parce que ñu bëree dañuy dañuy préférer télécharger film même si c'est interdit toog seen biir nekk seetaan ko plutôt que de se déplacer pour fay mais sachant que authenticité boobu comme par exemple ce livre aujourd'hui tu me diras que monde bi développé na un point boo xamante ni traite la vie am na ñu ko télécharger mais yow en tant qu'écrivaine bi lay gënal mooy ñu dem jënd livre bi lire donc am na ñuy ñuy bëgg a dund dem seetaan cinéma jeeg par jeeg jeeg par jeeg ce que je voulais dire mooy que euh, réduction cinéma yi mm. en Afrique c'est pas qu'au Sénégal booy xool Afrique Maroc ñoo fi am ay cinéma Afrique du Sud mm-hmm. ak quelques dëkk yu ndaw mais sinon ñeneen ñëpp seen cinéma dafay tëj même euh, Burkina bi nga xam ne dañ fay defee FESPACO mm-hmm. amuñu woon cinéma da doon tëj parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas la culture par exemple xool mercredi la jour des sorties de films mm-hmm. tu as envie naan bii moo dàq bee moo dàq donc du coup ñëpp dem di seetaan bi am na temps de vue du du cool France nga wax foofu les gens sont occupés les gens sont occupés dañuy bëgg a wàcc dem euh, se divertir la tête ñëwaat. mais fii man gis naa ko fii ay film yoo xam te dañuy génn doom si plaza mais joxe gis ay nit ñu ne non xaar damay bàyyi. mais culture cinéma bi la ñu perdre en fait culture cinéma boobu la ñu perdre actuellement. une non non je voulais juste dire que. <laughs> je voulais juste dire que en fait mënuñu euh, bëggu cinéma sénégalais bi jëm fu mu jëm te amuñu amuñu salle de cinéma. et moi je trouve dommage. que ñu ñu am salle de cinéma. boo demee ba film bi génn oh si si si yore sa ordinateur bu seetaan. c'est pas c'est pas la même sensation. que tu as en fait. li ma daloon de bu ku dal di nga bàyyi télécharge. <laughs> non c'est vrai man je suis pas. si. bien sûr. bien sûr mais man man je trouve que je eh, culture jeeg par jeeg jeeg yi pareeguñu yow Ndiaye ndànk rek. ndànk rek bu bu xotee ñun may de. ah waaw li ba jàmm la. ba jàmm la mais tamit. bay jeeg ji àggali. te ñoom ñëpp feebar de feebar yi kii daa sa kii tooy kii dafa nagam. teewul <laughs> kenn xamul lu ko dal. Ah, elles sont toutes malades ñoom <laughs> ah, vu. tu vu tu vu ñoom ñëpp a feebar jéggi. ñoom bàyyi mooy soo ba tey yaa ngi t-shirt yi. soble bi yëpp ay Aïcha Dieng waxal donc tu disais salle de cinéma man man je trouve que culture bi nit ñi perdre mooy. Mhm. le fait que nit ñi di sorte di génn en groupe. Mhm. di dem di divertir comme li nga wax léegi en mhm. Europe. mais li ma gën a remarqué Pape li gën a faral tëj cinéma yi mooy entretien. xam nga tamit nit ñi nit ñi duñ fi bàyyi seen ay bien lu mel ni ay cinéma. te nit ñi duñ ko entretenir. Mm-hmm. Mm-hmm. tamit loolu tamit c'est c'est un réel problème. mais y a pas d'argent en fait. oui y a y a pas d'argent. je veux dire bu fekkoon nit yi am nañ culture cinéma que chaque mercredi nit ñi dem wala samedi bi e que ñu boole ko sax booy courtiser nit. Euh, nga jël ko ànd ak moom. jëlal jëlal romantisme yow tu léegi nag may leen may leen xale góor yi wax nag. may leen xale góor eh, eh, yi góor yi nag moom may leen xale góor yi wax waxal waxal waxal. man man je suis je pas d'accord ci ci ci ci mairie li mu wax genre di évolution TIC bi dafa ñëw war a mën a compléter cinéma bi. Mm. Euh, je pense que affaire politique la. fii dafa mais complété ko. war a complété culture bi certes am na ci mais daf politique la cest à euh, ministère la culture wala su autorité yi am na benn culture euh, commune politique bu ñu doon def. Mhm. boo xamante ci cinéma salle de cinéma yi nañ ñëwaat. Mhm. et puis ci jeunes yi ñuy dem di si di teg ay films yi nga xam ne nii xam mais yow xam naa ko mais man li ma gëm mooy li wax on a perdu la culture d'aller nañu invité directeur oui oui et, et à, à chaque fois j'ai remarqué ni ci buñ ci defee débat euh, du am du am jeexital bi du am quoi j'ai regardé RTS euh, ñu defoon ci benn débat ak Oumy Ndour euh, Oumy Ndour mm-hmm. voilà après finalement doo ci gis benn benn benn yokkute. mais par contre ñoom dañu waxoon ne. développement direction de la cinématographie dañu ne woon. ñu ngi ci kawam depuis deux ans ils te disent que ñu ngi ci kawam pour defaraat ay salles de cinéma mais bon on mmh. attend toujours. quand il y a des arts qui sont devenus

waa Europe la si seen technologie développe ñoom bu ñuy taf lay def te ñoom terewuleen terewuleen a dem si nga xamante ne mooy cinéma